juróom benneelu xaaj bi ci juróom ñaari xaaj yi bi loolu weesoo sarata am doom ju góor ni ko yàlla dige woon ñu tuddee ko isaaxa sarata mu ngi woon ci juróom ñeent fukki atam kon dara tewul yàlla moo di yàllay kéemaan yi ay at jàll te bi isaaxa amee ñaar fukki at yàlla fas yéene nattu ibrahima mu ne ibrahima mu jël isaaxa doom ji mu am ak sarata te mu bëgg ko lool mu ne ko mu yóbbu ko ba réewum morisa te rendi ko ca kaw aw tund muy sarax ngir yàlla noonu ibrahima yóbbu isaaxa ci tundu morisa daldi tabax ab rendikaay yeew isaaxa tëral ko ci rendikaay bi bi ibrahima yëkkatee paaka bi ngir rendi isaaxa am malaaka woo ibrahima malaaka mi ne ko bu mu rey isaaxa noonu ibrahima gis am kuuy mu béjjén ya lonku ci ab garab gu ndaw ibrahima rendi kuy ma mu wutu isaaxa laata ibrahima génn àddina yàlla nee na ko askanam dina doon jaam ca meneen réew ñeenti téeméeri at léegi ma laaj leen fukk ak benn sarata mi màggatoon te jaasiroon jur na isaaxa ni ko yàlla dige woon loolu lan la ñuy jàngal ci mbir yàlla yàlla ku am kóllëre la lu mu digee def ko dara tëwul yàlla yàlla defkatu kéemaan la fukk ñaar bi ibrahima tegee isaaxa ci rendikaay ba ngir rey ko lan la ibrahima won yàlla ibrahima won na yàlla ne gëm na ko te fas na yéene déggal ko ak lu mu mën a doon wane na it ne Ibrahima yàlla la gën a bëgg ak doomam sax fukk ak ñett lu tax yàlla jox am kuy Ibrahima ngir mu saraxe ko mu wuutu Isaaxa yàlla may na ko luy wutu doomam ndaxte yàlla gisoon na ne Ibrahima naroon naa saraxe doomam yàlla bëggoon na Ibrahima ak Isaaxa te ci Isaaxa la yàlla di jaarale li mu diga woon ne dina yónni musalkat bi. fukk ak ñeent lan lanu war a def ngir yàlla barkeel nu war nañu ko jébbal sunu dund te topp ay kàddoom